la ñu mënoon yëpp def nañ ko waaye kuy waxal yàlla xam na li xew Thiès c'est tout sauf des élections c'est inadmissible ce qui s'est passé à Thiès dafa mel ni rek man maa doon cheval bi nga xamante ne moom la ñu war a rey ay coalition man cundum maa dem élection sans coalition de partis politiques avec des hommes engagés des femmes déterminées ñu jóg pour le changement ñuy wor di def def fausse information sur ma personne man c'est hier que je l'ai reçu mais su ma ko yëgoon dinaa amoon beneen taxawaay ak beneen doxalin sama diggante ak ñoom ñu taxaw ba dem naan président Macky Sall moo ma man sama sama famille y a de lâche amul amul jàmm man ña ma bokkal sama famille ñëpp ay gor lañu te ay noble lañu bu ma ko yëgoon danaa am beneen taxawaay mais ñu jël yàq sama der ne Macky Sall ma financé man su ma nekkoon APR damay taxaw yëkkati sama loxo ne APR la bokk ganaaru kenn nenul ma Saly j'ai gagné dignement ma ñama xam-xam nañ ko mais ñu war yàq sama der monter ay mbir ay nit li xew si élection yi ñëpp xam nañ du élection élection yoo xam ne nit ñi dañ continuer di voter ba midi ba minuit ce qui est inadmissible lu musul xew cees moo fi xam yenn enseignants yoo xam ne c'est des complices de cette lâcheté li nga xamante ne moo am parce que dañu far naka la ñuy jëlee ay nit ñu nekk en grève far ba pare ñu jël di leen di jiital di leen def ay président jury ce qui est anormal li xew nii du ay élection dañoo farta as askan bi xam nañ dañoo xar même des urnes ont été bourrées nit ñu gis nañ ko te xool nañ ko li fi xew du lenn lu la élection man je ne féliciterai personne parce qu'ils n'ont pas gagné ces élections la li fi am du ay élection lenn amu fi waaye nag atte yàlla moo gis lépp looy gis man suma ma leeroon ne campagne bii la ñu mënee contrement ma personne leneen dana doon am Thiès dañ ma tooñ yàq samay affiche yebal ay nit di ma saboté di ma def lu nekk ma alerté kenn tantuwul boobu dama jàppoon ne li kilifa yi waxoon mooy dëgg mooy kilifa diine yi ak suñuy waajur yu ñëwoon ne bu leen génne benn kàddu gu ñaaw ñu tooñ ñu ñëpp gis ko demaat ba yàq suñu campagne même suñuy bulletin ñëpp xam nañ ci Thiès maa njëkk a sama candidature loolu yenn journalistes yi leer na leen ñu jël samay bulletin ñu dem di voté ñu nëbb bulletin yi jël teg ko si ay rangé yoo xamante ne méngoowut ak sax man mi nga xamante ne maa njëkk a déposé sama candidature mu doon lu doy mu doon lu ñaaw ba ay maire ay pa ay ndaw dugg si saal di demander sama bulletin ba ñu nar a toj bureau yi man leen ne le faites pas ko def waaye am na loo xam ne lii du ay élection man maa ko wax et j'assume mes propos y a des parmi ces derniers ñoo saboté élection yi à Thiès man j'assume tous mes propos li xew fii c'est tout sauf des élections jaarul yoon dara jaarul fi yoon dañoo jël bulletin jàmbur yi saboté ko xeexuñu parce que dañoo far bu ñu amee ay problème avec l'état du Sénégal ils n'ont qu'à régler ces problèmes là avec l'état du Sénégal mais pas ñi nga xamante ne ils des gens qui ont prôné pour le changement ñu jël seeni i bulletin nëbb ko jot na nag état bi jël ay matuwaayam parce que lii kenn dootu ko nangoo te dootuñu nangooti élection yu mel nii di am si réew mi dootul dootu amati nañ jël élection yi jox ko armée yi wala militaires yi wala policiers yi wala gendarmerie yi ñu mun a jubal mbir mi mais jël ay enseignants yi for ñenn ñëpp dañoo for ñu jël leen def leen ay président de jury fan lañ ko teg ba ñu saboté kenn xamul lu ñu nduru fan lañu mujjee gis ay élection ñii ñi euh, des gens qui kon à voter jusqu'à minuit di voter ba 23 heures ñenn ñi di voter ba 22 heures lu musul xew Sénégal moo fi am vous pensez que man je vais le ferai pas parce que lii kenn xamul lu mu doon waaye nag nañu jàpp ne bu ñu jàppee ne législative yi nii lay demee wallahi wal azim bu ñu yaakaaree ne ñoom ñooy nekk ay président jury danañ nax seen bopp parce que lu leen si jaral ñun dinañ ko jaral si kàttanu yàlla suñu borom xew ñaaw na te rafetlu ñu ko te am nañu si la preuve élection yaa ngi nii ba léegi nii mënuñu publier ay résultats jusqu'à présent il ne parvient pas euh, à le faire ndax la ñu jël ay bulletins nit ñi buuree élection yi ils l'ont fait c'est ce qu'ils l'ont fait loolu moo am man sama dëgg nag du ko nëbb fu ma ko war a wax dinaa ko wax dama sant yàlla suñu borom li daa ma ne dama sant yàlla parce que dama jëfee ndigal samay waajur jëfee ndigalu sëriñ si mais suñu woon loolu leneen mooy am Thiès kon bureau yu bëri dañ leen invalider ici à Thiès parce que man ñàkkuma fayda et je me connais très bien waaye nag li am mun naa sax yéen a gagné je peux le dire ñun ñoo gagné élection yi je peux bien le dire li daa moo mooy man dama dem sans coalition de parti politique vous pouvez le vérifier quatorze candidats la ñu treize candidats yëpp ñii ay vingt part la ñu àndal ñii ay trente partis ñii ay quarante man un mois laa taxaw ne candidat la un mois yi dix jours j'étais un mois yi dix jours j'étais absent du territoire national parce que j'étais à la Mecque donc mun naa ne ñun ñoo am ndam li parce que ñun benn cundum la muy ma personne man cundum ma personne maa dem si élection yi te am na yenn bureau de vote yoo xam ne man maa leen gagné muy pouvoir beeg muy opposition beeg ak ñuy xëccoon ndam ñëpp am na yenn bureau de vote yoo xam ne maa leen gagné te c'est vérifiable donc dama sant yàlla bu ñu demee tey ba tiit ñun suñu candidature ba ñu tiit suñu candidature dem di fay ay nit di monter ay fausses informations sur réseaux sociaux yi naan Macky Sall ma financé dara to las lii jëfin gu doy waar gi dara gënta malhonnête jëfin bi jara gën ko iñaan jëfin bu bon bi parce que xamoon nañ ne élection yi suñu élection yi la parce que Thiès waaye ñu la ñu àndal mais mais xam ngeen ko parce que ñemewuñu ma ñemewuñu ma si réseaux sociaux yi lañ ko tas te ñëpp jot nañu information bi man c'est hier que je l'ai su mais su ko yëgoon leneen la ñuy wax barke alxuraan karim leneen la ñuy wax mais dañu xaar bi ñuy waaj a bloqué affaire yi ñu partagé ko seen réseaux sociaux mais ñëpp xam nañ ñan ñoo ko def parce que ñemewuñu ma ñoom xam nañ ne élection yi maa leen gagné xam nañ ko bu baax suñu weddee li ma lay wax nañu tas seeni coalition ñu ñëw ma dem ak ñoom suba ma gagné leen nañu daan ñu xool ko. man Thioundou Madem sans coalition de parti politique et en un mois que j'ai décidé pour participer aux élections euh, locales un mois la ko décidé dix jours yi j'étais hors du territoire national un mois man Thioundou maa am escore mel ni escore boo xam ne sax ay ay ay ay ay ay sàcc lañ si am ay tricherie ay tromperie ah far di bourré ay urne ah na gars yi recours résultat yi dañ koy invalider parce que du jàll et nous ne l'accepterons pas mais ils n'ont rien gagné ils n'ont rien gagné gagné wuñu tous à Thiès dañoo bourné urnes yi te ñoom xam nañ li ñu wax ils le savent très bien dépose nañ ay recours cour d'appel on verra est-ce que leur est ñoom seen élection yi dana jàll ou pas on verra yeneen fi maa ngi fi on verra mais li fi xew fii Thiès pré enseignants dootuñu dootuñu nekkati président jurifié à Thiès et nous allons les combattre parce que nag dootuñu ko nangooti nag bu ñu jotee ak état nañu régler seen problème ak état bu ñu faree si ay parti politique nañu régler seen problème avec les avec ces derniers mais du ñu nangooti ñu ñuy sacrifier ñun ñun l'accepterons plus loolu duñu ko nangu ils ne méritent même pas d'être des éducateurs man maa ko et j'assume mes propos ils ne méritent pas d'être des éducateurs ils sont tous sauf des éducateurs parce que li ñu def nii far la par parloo la comment on peut prolonger des bureaux de vote sans l'avis du préfet ou du sous-préfet ce am kenn mësul gis ci histoire politique du Sénégal mosu fi am vous pensez qu'on doit continuer cela jot na nag suñuy xaalis ña ko sàcc danañ ko génne caisse d'avance un milliard dañ ko fay cent trente huit milliards yi dana ñëw ñu ñuy accusé de crime muy ay Barthélémy Dias dañ leen di arrêté son affaire violon bi dañ koy sulli ñu teg ko stade ñu ko prisonniers yëpp nañ leen génne man li ma wax je l'assume ils m'ont déclaré une guerre barki salaatul fatiha man je sais me battre et je ferai n'importe leur coalition je ferai euh, face à suñ leen attewulee teguñu mbir mi si yoon je le dis na prisonniers yëpp génn si kaso yi nañu génn dem ñibbi parce que nag fii ñaari justice mënut a am Sénégal bisu ñëpp même pied d'égalité la ñu war a doon dañ leen a dañ leen di atte par force mu mënuñu ko ñu ubbi prisonniers yi ñëpp dem ñibbi léegi nag serait œil pour œil dent pour dent comme tooñ nañ ma man yàqal ma man je ferai face à mais ñi nga xamante ne nag Sénégal dañ leen a fal ay maire neen dañ leen fal xoolaat seen i dossier il est temps ñu xool leen parce que nag ñi war a jiite askan bi te askan bi yaakaar leen mu doon askan bu sonn dañu war a lijjantiwaat seen mbir et man j'assume mes propos te fu mu fu ñu ma woo man dinaa leen wuyu mais dañ leen war a atte par force ñu ngi siy condamné ñu condamné mënuñu ko nañu ibbi prisonnier yëpp ñu ñibbi seen kër parce que ñoom ñëpp a yem ils sont tous pareils